di leen nuyu ci barab bu tedd bi di maktabatu Cheikhul Xadim di ko gën a tuddee daaray kaamil dinaa leen di fàttali bis bu ne bu ñu nee daaray kaamil ñi nga xam ne miinuñu fi walla seen njàng walla xamuñu dëkk bi dañuy demee rek fi barab la bo xamné dañ fay denc ci alcorane kamil kese amna ñu bari ño xamné loolu lañuy fokk foog dal mom xeyna alcorane rek lañ fi denc alcorane rek mo fi ne wa alcorane day mi fi ndax moy saal bi jëkk ci saal yi nekk fii moo ci jëkk nga xam ne lépp lu ñuy wax maanaam bé kaamil boo soxla ci kaamil rek ma fa ndax yi mag ñi bindoon yu bari ma fa yi gone yi bind ak génération yi yëg yeleen gën a kawe ba tey jii lépp ma nga fa ndax Cheikh Abdoul Ahad yal na ko yàlla fayal bi mu fi nekkee mboolem gone ku mas bind kaamilu alquran rek boo ko joxee fii la ko indi ba moo tax kaamil yi ñu fi bind ci loxo bari na lool mën na maa wax ne amul fenn ci àdduna foo xam ne da fa dem fekk fa lu toll ni liñ bind ci kaamil fii amul fenn ci àdduna loo xam ne loxo rek lañ ko bindee salaaw boo demoon fa alquran wàccee woon sax amul amuf waxuma la feneen ndax mbindum loxo dafa nekk lu jafe ba sax dafa dem ba suñu jamono ji léegi technologie bu yees bi tax na ba nit ñi bindatuñ ci loxo bindatuñ ci loxo nit ñu bari sax mënatuñ ko mënatuñ ko waaye ñun dañu am aada ci sunu réew rawatina yoonu murit diplôme bi wane ne xale bi mokkal na alxuraan mooy mu bind kaamilu alxuraan ci loxo te du ko gis mu bind kaamilu alxuraan ci loxoom te du ko gis xam ngeen ne loolu day miin nañu ko nun waaye am na réew yi lislaam yoo xam ne waxuma réew yeneen waaye am na réewu lislaam yoo xam ne lislaam yàgg na fa lool ba fa lislaam demee ñëwagul sax Sénégal waaye loola daanaka xewwi na fa loolu daanaka amut boo demoon tey jii fu mel ni màkk wala Medina foofee nga xam ne ñooy ñaari pàkk yi gën a sell ci kaw suuf alxuraan doon wàccee foofa ba li ci wàccee Makka ñu ne makki makkiya lu ci wàccee Madina ñu ne madaniya boo fa demoon day kaamilu alxuraan yuñ bind ci loxo bala ko faa gis ah néewuma doo ko fa gis waaye yombul ñu nag loolu sunu aadala ba moom mooy diplôme bi wane ne kii mokkal na alxuraan waaye mooy kon mu toog cib néeg bët bu set mu bind ñaari isib ak genn wàll suqi ko sàdd ko maas ko te kaamil du nekk ci biir ne bi yëpp loolu day wane ne jekku na alxuraan itqaan na ko mën na ko loola mooy li nga xam ne moom la yàlla séddee Cheikhul Khadim ak Sénégal muy muy cër bu mag nag boo xam ne ñu ngi ñaan na wéy bu ñu ko xewil mukk buñu dama dama dem bam mu xew mi ngi koy bëgg def nak ndax amna ay sëñ daara surtout ci daara yu bees yi daara yu bees mom euh xale bi dañuy fexe ba mokal alquran rek dem fi waye du bind yu ci bari amna ci yu bind waye amna ci yu nga xamné bind mi soxalu len waye nak lu ci am solo la aada ju am solo la joo xam ne sunu réew ñoo ko fi dese ci àdduna si ak réew yu néew loolee nag dañ ko war a téye bañ koo seetaan ba nga xam ne day mujj dem waaye nag ni ma ko waxee rek bibliothèque la bibliothèque mooy barab boo xam ne lépp looy soxla ci xam-xam boo fa duggee fekk ko fa looy gëstu ci xam boo dikkee fekk ko loolu mooy bibliothèque université boo dem dana am bibliothèque dëkk yu mag yi foo dem dana am bibliothèque ndax nit ki dafa am lu bari lu mu bëgg xam te mënut a jënd téere yi téere yi ngeen gis nii ci bibliothèque bi nii mu wër leen am na ci yoo xam ne tey yow boo ko soxla woon dem ca librairie bi bëgg koo jënd ah boo wutul sa poos de dana jeex te boo wutul benn téere walla ñaar sax doo ko ci mën a am am na ci mu mujalladaat yu fi nekk yoo xam ne day mat fukki fukk ak ñaar wala fukk ak ñett wala fukk ak juróom yoo xam ne ñu ngi fi yoo xam ne boo demoon tey di ko jënd ci réew yi maanaam dangay am téeméeri junni wala million ñu doon la ko mën a jaay te sax am na ci yoo xam ne fi mu toll nii am na ci réew yoo xam ne boo demee doo ko fekk amatul loolu nag si Abdul Ahad radiyallahu anhu moo nu ko baaxe ba tey jii lii mën a am ci biir Touba ndax ñun amuñu culture bibliothèque sunu maam yi ñoo daan wut ay kaggu kaggu yoo xam ne ci seen biir néeg lañ koy def wut ay téere teg ci mag mu ne am sa téere yi cosaan ak sa téere yi yoo bind walla say way nga fab def ko ci di ko denc te doo nangu sax ku ko laal doo nangu ku ko jege loolu mooy li nga xam ne amoon na ci réew mi am na ba tey ñu ko am waaye lu toll nii nga tabaxal ko yàlla def ko ngir jullit yëpp muy ay million ay centaines di million tabax bi téere yi ko gën a cher tabaxu kii bi tabaxu bibliothèque bi téere yi ko gën a cher fuuf waaw téere yi ay millions yu dul jeex la ay conteneurs yu dul jeex la yoo xam ne lu nekk ci matière bu ñuy jàng rek la tàmbalee ca xam-xamu diine ba ci jigéen juy togg téere bi jàngale nan lay toggee sax am na fi loolu day wane rek li fi nekk bari na kon loolu moo tax ñu di ko leeral loolu nag at ñu di ko def at mu jot bi ñuy tàmbali xam ngeen ne euh, daawuñu def ay conférence dañu daan def majlis nii rek toog di firi ndax loolu mooy cosaan ci lislaam lislaam lii lu def nii toog nii ci biir jàkka mbaa toog ci biir mbooloo yor ab téere moo xam alxuraan la moo xam leneen la ngay firi nit ñi di ko jariñoo loolu mooy cosaan ci biir réewu lislaam yépp boo demoon fii na tey jii madinatul munawwara mbaa nga dem makka boo dikkee ci biir masjid bi ci biir jàkka ji dangay fekk ay mag yu yor alquran wala ñu yor buxaari wala ñu yor muslim ay nit wër leen ñu di leen ko jàngal ndax foofa xam-xam dafay dund ba léegi xam-xam ba léegi foofa dafay dund fii nag ñoo ngi ñaan yàlla ni ko Cheikh Mouhamadul Muntaxa waxee rek yàlla ñu dema dem ba mel ni réew yooyu mel ni mel Makka mel Madina ak Kuufu loolu gis ngeen ñaan gim euh, nisër gim nisëroon ci bi mu nekkee loolu la wan nit ñi ne leen sama yéene foofu la jëm te ku xool université bi ñun ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom nekk ak moom xam nañ ne ku mas a toog fab lu ma 37 milliards 37 milliards xare moom mën naa dégg milliards waaye xamu ko biir dëkk bi ngeen nekk nit koo xam ne am na milliard bariwu fi milliard nit ku ko fi am denc ko ak néew ki ngay gis de mu mu li mu yor lépp boo ko jaayoon li mu am lépp lépp ci àddunaam munta am quatre cent millions yu mat munu ko am waxuma laa milliard genn wàll gi sax du ko am milliard dafa bari tax na nga fab lu mat fanweer ak juróom-ñaari milliard foo koy def tabaxewoo ko sa kër joxewoo ko sa njaboot joxoo ko kenn loo koy def ab université pour jomi julli di di ci jàng te mom ay bu ay domam jang nañ ba mom bu fekkoon na day def ngir famem du def du ko def ay domi boppam yi mu jur mom jang nañ ba nopi li wara xam-xam nañ kon domi julli yi mu koy defal amna ci ño xane ne tour sax xamulé waye da koy def ngir yalla kep ak bëgg nit ñi xam kon yalla na ko fi yalla yagal nako ñepp yalla yalla yalla yagal ko fi ak yagam fi de njariñu nit ñi la ak njariñu nit di la waaw kon nag na ko ñëpp ñaanal kon tey ñi ngi ci majmuwa bi nga xam ne moom tàmbali woon nañ ko daaw waaye eh, eggutoon moom lañuy jéem a yàggal majmuwa bi nag eh, sëñ Abdou Lahad mi moo ko dajale lu tax mu dajale ko ay waxtaan yu teqalikoo loon yu bare bare bare lii nga Daaru Musi léegi nga njaareem léegi ci kaggu mag ñi ñu denc léegi ci farloom ak xalaatam mu gis ne warees naa dajale li doon wax pour def ko ci benn téere nit ñi mën koo jëriñoo mu dajale ko lépp bi mu noppee mu tudd mu dajale ko ci téere bi tuddee ko mu am majmua al kubra ak majmua al sughra ay fataawaam ci biir ci yoo xam ne sëñ bee ko def ay lettre yu mu doon tontu mu ngi ci biir sëñ bee ko def ay ndénkaan nañ ci yu bare bare bare bare yoo xam ne am na solo lool loo xam ne ñu nun ñu fekke wutoon jamono Cheikh Ahmadou Bamba fekke wuñ woon ay jataayam dañ ñu koy nettali rek nu toog xamal suñu bopp ne lii ci moom la bu jógee ak am solo mi ngi mel ni ngay jàng xadis xam-xamu xadis mu wóor la yow di fekke woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye lii ñu di la wax moo ko wax Aini ay nit farlu mu don wax ñuy bind ba di ko ba ci yow ne Muhammad sallallahu alayhi Wasallam musul dik Sénégal wo Afrique sax musu fee dikk musu tegu te lim bind ak lim wax lepp ex na fi kon yalla nu yalla fayal sahaba yi nga xam ñoko ñoo ba lim wax lepp ñu jokkale ko bam dem ci aduna ci ndax kat bu nu ton ci alcorane du nekk julit buñ jotutoon ci xadis du nekk jullit ndax ñaar yooyu ñoo fi ne alquran ak sunna leneen lu waaye di jàng ci àdduna jàngoo ko xamoo ci diine dara kon loolu li ko fi agsi lii li ko fi agsi mooy sunu mag ñu baax ñi rek nga xam ne sëñ bi daan toog di wax ci wolof am na yoo xam ne wolof la ko daan wax waaye ñoom ñu dégg arab di ko doxal ci làmmiñu arab ku mel ni sëñ Maxtaar Bintaloo mi ku ni sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ku mel ni ñooñu nga xam ne ñoo waroon sëñ bi ñoom ñoo doon dajale yu mel nii am na ci yoo xam ne sëñ bi du ko wax ci arab ci olof la koy wax waaye ñoom ñoo koy tëgg ci arab bind ko ba loolu moo waral téere yu mel nii ngeen mën koo gis ngeen xam ne it lu am solo la ndax gone yi ci baree bare bare dañuy jàng école ba ñoom dootuñu xam sax seen culture réew ak culture seen i maam ak yépp dootuñu ko xam dañuy réer maanaam nekk nit ñoo xam ne dañuy dem ba réer dañuy réer ba noppi jàpp ne xam nañ loolu nag mooy danger bi nekk ci ñoom nit ki nga xam ne xamul te xam ne moom xamul kooku amul danger problème bépp mu ngi ci nit ku xamul dara ba noppi jàpp ne xam na waaw laa tadri wala tadri annaka laa tadri xamoo dara te jàpp ne xam nga lu ne xam nga ki xam ne jàpp ne ne xam na kooku dootu jàng ci kenn ki xas ba jàng jàpp ne xam na lu ne kooku dootu jàng ci kenn day jàpp na rek xam na te fekk xamul dara kon nag loolu li war a njëkk a xam gën koo war a xam nag mooy li sëñ bi bind sëñ Tuubaa lim bind dañ ko war a xam da ko war a xam kuy jàngi ndax lu lu waaye di jàng rek feneen la jógee waaye lii moom fii la jógee Cheikh Ahmadou mii la jógee kon dañ ko war a jàng dañ ko war a xam kon yéen élèves yi nga xam ne yéen a nekk fii yéen a tax may wax na xam seen bopp xale yi jàng yeneen jàng muy français yéen a ngi leen di gis fii du ñu fi jóg suba ngoon day mel ni ah bëgguma tooñ waaye daal ni ñu ni ñu farloo ci gëstu de ñiy jàng lislaam gëstoo wuñ ko noonu xaw ma nag dañ leen a gën a xam-xam wala xam-xam xaw ma ñi ci des dañoo xaw a am li gone yi tuddee complexe nga xam ne lu leen jege rek ñu xeeb ko lu leen sori rek lañ bëgg loolu nag ñàkk solo rek la ak ñàkk fayda waaye fexe ba la jege nga xam ko bala ngaa xam li la sori de moo gën moo gën moo gën ci nit kon tey ñi ngi waxtaan ci anwaaul majalis maanaam jataay yi doomu aadama foog mu am garam fu muy toog benn mu toog ci jàkka ja ak i bokkam ñuy waxtaan wala mu toog ci mbedd mi wala mu toog ci Euh, liggéeyukaay yi ku ne rek am nga fooy toog di daje ak nit ñi doomu aadama boo gis rek am na barab boo xam ne ñaare bu féexee fa lay dem toog fa di féex loolu moom lañuy tuddee al majalis euh, jataay yu mel nii ñu toog it di jàngale duñ toog ci ay banc duñ toog ci ay chaise table du fi ne nuñ koy tuddee majalis waaw ndax mooy façon jangalim mi nga xamne ñi fi am xam-xam ñëpp ci lañ jaar ba jàng ba egsi fi muy wax fi ne anwa'ul majalis majalis yoy nak dañu gënante manam fi ngay tok barab yi ngay tok ay façon yu bari la mu al majalis khamsatun mujalasatu sagir toog ak xale واو دا نجي اسمع مو خامنئي أي خالد رجلي توكل واو غنر رجلي توكل سنتوا ما يوح من مجالسة الصغير تؤدي إلى اللعب والله نقول من بوتوك من خامنئي لونك تخلما فورك تشاخان فوق mag muy togo ay gone bu yagge ab tiaxan ke ngay don ab fokor rek ngay don ndax gone xamut ci aduna dara xale moom jàpp na ne bu toogee ci barab bu fa wut caaxaanul nekkul ci dara mu ne nag képp kuy toog a gone lu mu lay indil ilal bi walla caaxaan ak fo rek ak ci lu ñàkk fayda yoo xam ne du am benn njëriñ loolu nag firiwul ne mag war a toog a gone firiwul loolu de mag kay moo war a toog a gone di ko jàngal di ko yee di ko labiré waaye toog ak ay gone ñuy fong yow nga ànd ak ñoom di mag di fo loolu la wax loolu amul solo loolu baaxul waaw wa mujalasatu nisaai tuaddi ila al maasiya ne beneen jataay bi mooy di toog ay jigéen ne nit kuy toog ak ay jigéen ñaare moom lam koy jural mooy mooy yàlla rek képp la koy indil ak mooy rek bu jugee fofu rek ba wutu ci mo yàlla la jëm bu fekke jotaay ba du jotaay bu melni sunu jotaay bi nga xamne kenn amul soxla ci kenn lumay yàlla la fi indi ak xam-xam kesse leen andi wu def kon neena na toog ak jigéen ah la ci ëpp lam lay indil maasiya rek la lay andil yàlla nañu ci yàlla musal wa mujalasatu sultani tuaddi ila al kibr wala ngay toog ak buuru àdduna yi ministre yeeg ñi faloog ñooñu nga xam ne bët bu set dañuy wane seen bopp fu ñu taxaw di wane na noo fi ne ñoo yor wala noo nangam ne ñooñu booy toog ak ñoom lu mu lay indil ak rëy ndax da leen di roy waaw yaa ngi leen di roy ci ni ñu mel yaa ngi leen di roy ci ni ñuy doxe yaa ngi leen di roy ci ni ñuy waxe rëy nag yàlla na ñu ci yàlla musal mooy mooy yàlla gi gën a garaaw ci kaw suuf iblis dara dugalu ko sawara iblis lim jaamu yàlla kenn jaamu ko yàlla dañuy wax ne biir suuf yëpp àdduna ba mu daj foo teg sa tànk rek iblis ma sa faa jaamu yàlla lu ko alak al kibr rëy kibr mbubb la moo xam ne yàlla nee na man rek ma ko mën a sol rëy rëy mooy nit koo xam ne danga nga gis sa bopp yaakaar ne yow lu ne nga te doo dara waaw rëy Iblis dafa gisoon boppam ba defe ne moom war naa rusa woyefal yàlla ba mu ne ko usjudu li aadama fa sajadu illa Iblis yàlla na malaaka yépp sujjóot leen Iblis lànk ne man duma ko sujjóotal ñu laaj ñu laaj ko lu tax mu ne xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tinin man kat matière bi ñu ma bindee moo gën a fort matière bi ñu bindee aadama mii kii ci suuf su ban bii lañ ko bindee man ci safara lañ ma bind am na ñu ne iblis bëggoon naa sujjóot waaye bi mu xoolee ñépp sujjóot sujjóotut ba ñoom ñépp ñu siggi mu rusa sujjóot ñépp di ko xool mu far na sàng taw yàlla ne ko nag alku ngër yow moom tard naa la laan naa la dootuma la jéggal mukk ci iblis rek la yàlla waxee masa waxee nit ne ko duma la jéggal mukk mënatoo def ci kaw suuf lu tax ma jéggal la kon bàkkaar bi mu def for na yàlla inna laa yaxfiru zunuba jamian moo ko wax bàkkaar yépp man yàlla dinaa ko jégale waaye lu tax mu xool iblis mi ne ko yow duma la jéggal mukk foo jaar dama lay lakk ku ànd ak yow ma lakk ko lu mu def kibru rëy ak bari ci suñ jamono ji te mata wattu te ñu bari xamuñu ko te képp ku mu dal feebar la boo xam ne dangay ngay fexe nooy def ba dindi ko bala ngaa faatu bala ngaa dee da koy fexe ba dindi ko li koy dind nag tarbiya maanaam lañ la yar bu ñu la yaree rek mu dañ mag ñi dañ daan yar nit ngir dindi ci moom rëy nu ñu ko daan dindee gis ngeen yalwaan nii ngeen gis léegi nit nit di ko def la taxoon cosaan la bokkutoon ak wut dara du caageen wut xaalis wala wut pepp wala wut booba dañuy fexe nit ki dindi ci moom ak rëy waaw maanaam tey yow yaa ngi dëkk ci dëkk bi say bokk yëpp fi lañ dëkk nga nawloog ñëpp ñu xëy benn bis jox la battu yalwaan ngay taxaw ci buntu kër yi di wax laa rabbi xam nga ne loolu ak suufe la gu méttee métti ndax ku la wër te xeeb dana la xeeb ku la wër te yeb dana la yeb waaye loolu liñ ci jublu woon mooy toj sa xol ba yow rëy gi nga xam ne moo nekk ci yow loolu yi dañ ba set wecc ndax ku mën a taxaw ci buntu kër di yalwaan doo rusa demal kenn yónneen doo rusa toog ci suuf doo rusa defati dara ndax sa xol léegi nooy na nepp lu bari dootoo ko def sagar yi ngeen gis ñu di ko wax ay dabb daaxe ñu di ko sol muy sunu mbokki Baay Faal di ko sol loolu bu leen yaakaar ne fii la sosoo de yàgg na bu ngeen jàngee taarix taarixu tasawuf bu ngeen ko jàngee da ngeen ko gis muraqaat lañ koy tuddee loolu li ko war waraloon moo di da ngay gis nit koo xam ne doomi buur la ñu di ko tarbiya nga xam ne mën na jënd tissu bi gën a cher ci dëkk bi lu mu mën a jar rek mën na ko jënd am na njëgam mu dem boole ay sagar dabb daaxe ko yu bokkut di ko sol jaar ci biir nit ñi te mën a am bubb yu gën a rafet yooyu loolu lépp lu mu ci jublu mooy wàcce boppam ba mën a ànd nit ñi ba kibriyaa du nekk ci xelam boppam ndax kibru musiba la bu xasee ba nekk ci yow dañuy wax ne sax xam-xam sax nit ku réy du ko am fi ne doo gis aalim yoo xam ne dafa am kibriya rëy xam-xam nit ku rëy du ko am ndax ku rëy du nag day rusa laaj dana rusa laaj ku ko mag dana rusa laaj ku ko gën a doon ndaw lu xamut it mën na caa wéy ci réer ba faw waaye bu fekkee diw rek ko xam moom duma ko xam ko xam ndax duma ko laaj loolu la la gis nit koo xam ne ak réyam dana ko yóbbu ci loolu kon rëy yàlla na ci yàlla musal mën naa yàqal nit lu bari mu ne nag toog ak buuri àdduna moom lim lay indil daal mooy rëy wa mujalasatu ulama tuaddi ila al wara mu ne boo fekkee da ngay toog ak borom xam-xam nag foo toll daal ki ngay toogal borom xam-xam la borom xam-xam boo koy toog ak moom day lim lay jural mooy foo toll da ngay sàmmante ak li la yàlla digal foo toll sa xel day nekk ci li la yàlla digal di wattanteeg li la yàlla tere waaw nee na ndax loolu la lay diggal mom loolu rek lay wax ak yow du la wax lén kon momit it loolu lay jur kon togo ak boroom xam-xam lu am solo la ndax dana tax nga xam li la war dana tax nga xam li la warul wa mujalasatu al aarifina tuaddi ila salaaxi al qalb aarif ak aalim bokkut aarif fii ne boo laajoon xale yii koo ci laajoon ne ko luy aarif daan la ah, mooy boroom xam-xam arafa yaarifu maarifatan loolu rek la déedéet ñaari baat yoo gis ci arab bokkuñu rek kenn ku ci ne am na maanaam bokkut ak moroom ñaari baat yoo gis ci loxol arab yi ñaari baat yi bokkut la ñuy niru maanaa yëpp am na lu ñu wute waaw aarif mooy kan mooy ki nga xam ne am na xam-xamu diine jàng na téere yi ba xam ko waaye yàlla defal na ko xam-xamu baatin muy nit yàlla yi piir ku mel ni Cheikh Al nga xam ne li xam du caageen téere yi rek la xam déedéet yàlla xamal na ko lu nekkul ci téere yi baatin bu nekkul ci téere yi moom yàlla xamal na ko loolu mooy aarif billah koo xam ne li nga xam jéggi na li nit ñiy bind ak di ko gis waaw kon aalim nag mooy ki nga xam ne moom liñ bind daal xam na ko waaye luñ bindul xamu ko aarif nag liñ bind ak liñ bindul lépp da koy xam ba noppi nag jikkowoo lépp di ko jëfee kooku mooy aarif billah euh, ومجالسة العارفين جسنجن دفن مجالسة العلماء خمو منونا ينفو بفكونا باتو عالم اكباتو عارف بيننا منونا منونا بجا وخات مجالسة العارفين وعيمنا مجالسة العارفين تؤدي إلى صلاح القلب توقك عارف بالله دفاي دفر سخور نتيال بير بوتوك موم جرب سموي وحق يوم bu ngeen toogee danga gis ci aw meloom ak jikkoom ak meloom rek loo xam ne yow boo fa jógee rek dina am lu mu def ci yow loo xam ne loo doon def ci ay càggante rek da ko bàyyi gis ko rek ak sa bët moom lay def ci yow aarif billahi aalim nag mën nga koo gis nii te du la jëriñ dara bu la waxul dara du la jëriñ waaye aarif moom boo koy gis di jëriñ waaw loolu ku melni seigne touba ak ñu melni mom ak ak ak kon majalis yi rek la doon wax manam nit boy tok ci barab setal ba xam jotaay ba am na wala amul njëriñ limi jangale fi fii rek li ci bëgg a woné nit dal bo jógee sa tank di wuti dara dem majalisu shaqawa yoy ngeen gisoon seigne bi di wax majalisu shaqawa garam place garam place yoyu mo jox nan naan majalis saxaw bari na ku ngeen di gis muy mandi ba mu manon na don don doon professeur bu mag nek ko xamni sax manon na dem ba wara mana yor am réew majalis yu bon yoyu muy fréquenté yoya ko yakal adunam yakal ko dinem yakal ko am jangam ba mom mënatul tekki dara ci kaw kaw kon nit fumuy tok ak fumuy dem war na koo xool ña muy toogal it war li tax muy tudd ñi ngay toogal fii kenn ku ne mu tudd ne booy toog ak jigéen booy toog ak xale booy toog ak aalim booy toog ak aarif dafa laa bëgg a won ne jataay bi doyul rek nga dem toog fa déet xoolal ba xam ki nga fi toogal kan la ndax da nga fi jëlee dara ci moom wala doo fi jëlee dara bu la wóoree ne jataay bii du ma fi jëlee daray xam-xam du ma fa jëlee daray njëriñ rombal te dem kooku min majalis si saqaaw wajtanibu lu ci wu majalis saxaw ak bari léegi daanaka mbedd yi xale yi koñ yi ci la ñuy toog koñ yooyu ñuy toog yëpp majalis saxaw rek la ndax duñ fa wax dara lu am njëriñ xanaa lu leen di lor sax lañ fay wax te sëñ Tuubaa nee na woon wattandiku leen kii jang na nga ko gën a wattandiku wattandiku xale bi jang ak ka war wattandiku garam place waaw ki dem bay jang barab yooyu moom garam place yooyu waru koo def ay kéem de ndax garan place moom la muy yàq ci yow moo ëpp lu muy defar ci yow waaw kon majalis yooyu lim ci jublu ci wone ko rek mooy bëgg ngeen xam ku fu ngeen di toog ak ku ngeen di toogal xam foo war a toog ak xam koo war a toogal loolu rek loolu bëgg a jàngal ci majalis yi ñu ñuy tudd مديكات في بنين بنتبي في الاجتهاد والتأدب وترك التسويف فرلو اك ام يرك تجين اك باي لني تودي تسويف لان موي تسويف تسويف موي لان ين الوي ني نيك كلاس ثانوي ولا اعدادي خينا ورغن كو خام نورمالمون fekkee foofu ngeen nekk ah, man nag ab jàngalekat la munu may ja munu may jàngale te laaju ma foo ma laaj man jàngalekat la kon ñi may jàng li may ñi ma du ma wax rek ñuy déglu damay wax ndax li may wax mi ngi dugg wala dugut ñu ngi koy téye wala téye loolu jàngalekat bu dul laaj ah élèves yi dañuy toog di nelaw rek waaw dañ lay wax na sa classe yow jàngalekat bi boo bëggee xa élève bi ci gën a xaw a yëngutu yaruwul fexeel ba ba saabu ne laaj booy laaj rek laaj ko léegi tey mun a nem léegi tey mun a nem ndax day ruus luñ ko laaj du ko xam ay moroomam di ko reetaan moo tax jàngalekat day war di laaj waaw boo laajul rek doo xam élève bu dox ak bu doxut élève bu xam ak bu xamut élève buy fo ak bu dul fo il faut ngay laaj taswif mooy lan taswif ci baat bi ci lu mu jógee taswif yan élèves yi ah sawfa wax nga dëgg de sawfa sawfa yu sawifu taswifan taswif mooy lan sawfa nu ko olof di waxal ci kaw saw fa nu ko olof di ah ah gone yi xamuñ xalset naa de xale yi xalset naa de boo leen ko laajoon xamuñ lu doon xalset ci olof xamuñ ko de saw fa mooy niig niig niig niig yi la ko olof yu waxee ba tey olof yu yu xóot la ba tey ba tey olof yu xóot la saw fa daal mooy looy bëgg a def waroon nga dem école léegi heure baa ngi jot nga ne ah nelaw yi daal neex na naa tëddaat ba ci ba ci kanam tuuti nga tëddaat heure bi jot na nga ne ah mën naa bàyyi ba mu mat fekk mu des dix minutes wala cinq minutes li nga war a def ci suba nga ne ah naa bàyyi ba ngoon li nga war a def tey nga ne naa bàyyi ba suba lu ne rek waxtu wan ko war a def doo ko def loolu mooy taswiir mu ne nag sëñ Tuubaa ne na farlu ci teggin ak bàyyi taswif ku tardé rek moo la tardé ci àdduna ak alaxira loo war a def ci saa si nga di ko xaaree ngoon wala suba lu jot rek def ko ca bam jotee waaw lu jot rek def ko ca bam jotee ndax boo ko yeexee ba beneen waxtu yeneen mën nga am yeneen occupation wala yeneen mbir yoo war a def yoo xam ne bu loola dikkee dootoo ko mën a def ngoog moo tax nit dafa war a programme programmer léppam lu ne mu wutal ko waxtu bu waxtu ba jotee mu def ko sëñ Tuubaa na nag na ngeen wat na ngeen am yar ak giin te farlu ca te wattandiku taswif kon na ngeen xam ne taswif mooy koo xam ne looy bëgg a def rek doo ko def ci waxtu wuñ ko war a def danga koy bàyyi ba waxtu weesu loolu mooy taswif bismillahi rahmaani rahim أمرتكم بالاجتهاد فيما أذن لكم فيه بلا غفول عنه ونهيتكم عن كل ما لا فائدة فيه وأمرتكم بملازمة التأدب في كل شيء ونهيتكم عن التسويف وأمرتكم بالمبادرة إلى كل ما أذن لكم تعلموا وتأدبوا تعلموا و أو وتنتفعوا في الحال تنتفعوا في الحال والمحال. دين كان بو أمسلو نيب وردك دين كان بو أما أمسلو غيني بو سين تواري وخ سين تواري وخ لو أمون جرين بو دك لو لمي وخ رك جرين بو كو ساغني ألكو ألكو ويسود نين ني جرين جرين لول فو ألكو ويسود لول moom ay waxam danga nga ciy jaar di jariñu léegi léegi bu fekkee am nga bëti xol sa xol a ngi dégg bu sa bët xol du dégg nag day mel ni li muy wax day jaar fii dégg dugg fii mu ne amartukum bil ijtihaad digal naa leen ngeen farlu farlu mooy lan mooy nit koo xam ne doo tayal farlu mooy safaanub tayal waaw nit ku tayal ku ne doo farlu ku farlu ku ne doo tayal te tayal nag am na lu ci gaa yu baax yi waxoon de tayal sëñ bi sax ko wax innal kasuula laa yasuudul jira nit ku tayal doo ko fekk mu nekk mukk njiiti ay moroomam maanaam du gën ay moroomam mukk doo fekk ci benn génération xale bu nekk ci école gën faa tayal xale bu nekk ci liggéeyukaay gën faa tayal mu dema dema dem ba nga xam ne ay moroomam danañ xëy benn bis ne leen diw mii de moonu doy nan ko jiital kenn du ko jiital moo tax mu ne innal kasula laa yasudul ji la waaw du nekk sangab ay moroomam mukk ci àdduna moom koy dañ ko yirif mu nekk al toppi buy toppe waaye kenn du ko topp kon yàlla na ci musal te loo ko jëndee jaru mu ne amartukum bil ijtihaad fi ma uzina lakum fii digal naa leen ngeen farlu ci lépp loo xam ne dañ leen ko digal bilaa xafulin anu gis ngeen bi inde andee baatub ijtihaad andi na baatub xafla xafla mooy safaanub ijtihaad sàggan mooy safaanu farlu waaw bila xufulin anhu wa nahaytukum an kulli ma la faidata fii maa ngi leen di tere lépp lu amul njëriñ lépp lu amul njëriñ maanaam nit sëñ Moussa Ka radiyallahu anhu ku yeewu la woon danaan wax ne day Moussa Moussa bu bu yëkkatee ab tànkam faida rek mbaa maida waaye du ko def ci nen maanaam daal lu muy def lu ne ak fu muy jëm fu ne day xam ne bu fa demee jariñu fa ci wàllu diine wala mu jëm jariñu fa ci wàllu yàlla wala mu jariñu fa ci wàllu àdduna waaye fu njariñul diine nekkul njariñul àdduna nekku fa nga di fa jëm amoo la moo tax nahaytukum an kulli ma la faidata fi lu amul njëriñ rek bu leen ci dugg waaw waaw xam ngeen ni télévision yi ak yi ñu xewal legi nga xam ne yàq nañ suñu environnement bépp weeru koor bi sax ñu mënoon sarax nit ñi bok di def loo xam ne day xemmam loolu nit ñi ci seen diine théâtre yi ñuy def sax théâtre ayut théâtre lu baax la théâtre wasila min min wasaili tawiya dafay yee nit di ubbi bopp nit di ko xamal lu bari mi ngi mel ni rek lépp lépp yi nga xam ne moom la sunu maam yi daan def bu njëkk loolu jubluwuñ ci woon ay po jàngale lañ ci jubluwoon ndax dañuy fekk loo xam ni xale bi mënugu koo wara xam xelam mënu koo xam ñu fexe ba dugal ko ci lu melni lépp bu ko défé lépp wo buñ koy wax xale bi da koy neex day neex ci mom te bu noppé da koy mokkal te bu démé ba am xel da koy jëriñu yooyu ci dess tam non la warona mel waaye nak légui da ngeen xam ne théâtre yi ma fi faida amul ben jëriñ wala bok ay lor sax mo ci nek fa te liñ ci jublu na ngeen xam ne ñoom ñi koy def ci télévision yi defuñu ko ci ay neen rek ak bëgg ku ree dañ koy bind scénario lay nag dañ koy bind borom xam-xam mooy bind théâtre bi scénario lay doon ku jàng professeur bu jàng bu am xam-xam moo koy bind bu koy bind nag am na lu mu ci jublu am na hadaf mooy am na su am na lu xew ci société bi ci ay aada moo xam aada yu jëm ci wàllu diine la wala yu jëm ci wàllu lu baax la te neexu leen ñoom ñu bëgg ko dindi xam ngeen ne yéen a ngi fi gis euh, ca gannaaw xaw ma sax loolu ñu ngi koy teg ba tey lu ñuy wax lan bàyyi ili daawu leen ko dégg nga xam ne ku ko dégg rek ree xool leen de loolu lañ ci bëggoon nag <laughs> loolu rek moo doon seen objectif ilimaan lu toll ni ilimaan ilimaan fooree ci lislaam imaam nga xam ne moo lay jiite ci sa diine moom ngay topp ci sa gannaawam ci faraid yépp ñu fexe ba ñàkkal ko fayda ba boo amee doomi bàjjan sax moom koy tuddee boo bëggee reetaan nit sax tuddee ko maanaam loolu liñ ci jiwlu mooy bu mu amati valeur imaam bi boo nekkee ci kanam gannaawam bu mu am valeur ci société bi parce que bu imaam amatul valeur rek diine dutu am valeur ndax li ëpp ci diine gën cee fort mooy assalaa te moo la ko jiite gannaaw moom amut valeur kon moom diine amatul valeur loolu lañ ciy jublu ñoom te fekk yow da ngaa yaakaar ne dañ lay reeloo rek reeloo wuñ la de dafa am lu ñuy liggéey te bu sottee nga xam mu ngi bokk ci film yi gën a bon ci Sénégal yi ñu fi def ci yoo xam ne dafa contre l'islam contre diine di ko yàq théâtre boobu te nag ñu bari xalaatuñ ko sax dañuy seetaan ba noppi rek naan bàyyi ili bàyyi ili bàyyi ku ñu amati ku ñuy reetaan si sax bàyyi li lañ koy wax kon loolu lañ ci jublu na ngeen xam ne yi ñuy def di ko théâtre yi jubluwuñ ci ay caaxaani ki ree kese de dafa am culture bu ñuy def sa bopp boo xam ne bu ñu ci noppee rek yow nga yàqu ngoo wa amartukum bi mulaasamati taaddubi fi kulli shay maa ngi leen di diggal ngeen taqoo yar ak teggin fii kulli shay ci lu mën a doon yar ak teggin dafa baax yar ak teggin mooy nit nit nu mën a mel ci àdduna te amul yar ak teggin daanaka moo ko yi mala yi fas yi ak xar yi ñooyam yar ak mooy xam ku la mag nga jox ko cër waaw xam ku la gën a nekk xale nga yërëm ko ngir yàlla

di nga noppalu lool danga nga noppalit ñi nga nekkal mais kuñ ko deful ci yow di nga sonn sonal nit ñi waaw moo tax sax señ bi xam-xam li mu koy bëgg bëgg bëgg ak li mu koy fonk fonk eh, dafa wane ne jàng jàng ba raw ñépp te amoo yar amoo teggin fa kasratul ilmi بغير أدب جالبة إلى الأذى والتعب boo jàngoon ba raw ñëpp te amoo yar amoo ni nga ko war a waxee xam ngeen ne yéen a ngi gis ci télévision yi borom xam-xam yu ñàkk teggin yu ñu yarut yéen xam ngeen ci dara bu ngeen ko xoolee gis borom xam-xam boo xam ngeen ni kii jàng na jàng na de waaye ku yaradiku lay doon bu waxee nga xam ne yaruñ ko bu jëfee nga xam ne yaruñ ko moo tax it li muy wax du jëriñ kenn dara bët bu set ay gone yu jigéen lay toggal di wax ak ñoom yu ñàkk fayda kepp loolu yéen a koy gis bu set te kat ñooñu jàng nañ ay borom xam waaye yaruñ leen kenn yaru moo tax sëñ bi ne jaalibatun ilal ada wa taabi ñooñu ñoo gën a sonn ci réew mi ndax luñ sonne mooy dañuy am xam-xam ba noppi bu ñu waxee ñu weddi ko ñàkk yar li muy indil boroom xam-xam moom mooy dangay wax lu jub ba noppi foo ko waxee ñun la déedéet te dëgg la de li ngay wax dëgg la waaye nag euh, yar ba des dañ laa yarut nit ku ñu yarut moom bu waxee nga xam ko bu doxee nga xam ko bu toogee nga xam ko moo tax gone yi war a jàngi naa ci xodaal xaaj sëñ Tuubaa dimbale na nun foofu lool bu ngeen ku ko jàng te jëfandikoo ko waxuma la yar ak teggin waaye da ngay civilisé rek

moo tax mu wax ni bi mulaasamati taaddubi da ngeen taqoo ak yar fi kulli shay ci lu mu mën a doon wa nahaytukum an taswif maa ngi leen di tere ngeen wattandiku taswif mooy mu laa leen waxoon léegi taswif mooy safaanub mubaadara taswif mooy safaanub mubaadara mubaadara mooy lan mbaadara mooy loo war a def rek bu jotee nga def ko bu julli gi jotee fi saa si nga julli loo boo war a loo war a def rek heure bi jot na kenn du la amoo am amoo kersa euh, ci nit ki ba tax doo ko def te nag bari na ñoo xam ne tas wi boobu leneen koy tax di mu dem ba nekk seen jikko ndeysaan du bon sax dañoo bari kersa kerse nag bu la yóbboo ba yàqal la booba kerse gaa ngi lay bëgg a lool kerse baax na waaye dem ba egg ci nag loo bëgg a def sax dootu ko mën a def déedéet loolu day bokkul ci kersa ak ñàkk xabaa wala ñàkk fayda waaw ñàkk xam la kon tubaab yi nga xam ne ñun moom lañuy roy baat bii ci lañuy jaar ñoom ba li ñu am ñoo ko baat bii nuy xeeb wallahi tubaab yi ci lañ jaar boo demee ci seen dëkk yi ba gis leen danga xamal sa bopp nit ñi li ñu am li leen ko may mooy fonk waxtu lu jot ñu def ko loolu leen ko may de ñun li nu dal mooy duñ def dara ci waxtoom lenn lu leen dañuy bàyyi ba fi aaxiri lax la ñu doon ko def moo tax def lu sotti dina ñu jafe lool def lu sotti dana nu jafel teyit am réew moom akub dëkk akub kër ñooyam ku sàggan dara du dox te taswiif nit ku sàggan lay dal moo tax sëñ bi di ko tere sëñ Tuubaa lu muy tere wax naa leen ko fii ku lu am njàngaleem bu ko nit sàgganee rek dañ ko ko leeral njàngaleem sëñ Tuubaa ku buñ ko sàgganee rek dañ koo leeralut ba mu leer waaye bu leeree rek ñépp déglu ko kon taswif mooy loolu waxoon naa leen ko leeral naa ko ci njëlbeen wa amartukum bil mubaadara maa ngi leen di dégg bi ma leen teree lii digal naa leen lii na ngeen di gaaw ci lépp lu ngeen di def rek lu lu ne gaaw leen def ko dund gi gaaw leen def ci li ci xaj bala ngeen a faatu wér gi na ci def li ci xa li ci li ngeen ci man bala ngeen a feebar waxtu wi na ngeen gaaw def ci li ci war ci julleeg jaamu yalla ak li ci war lepp bala waxtu wi wessu waaw lo wara def rek na nga gaaw def ko ndax kat sax nak def ga moy li la war ndax xamo ci sa bop dara xamo ma ngi xaar ba ngoon ku la wax ne bu ngoon dana la fekk ma ngi xaar ba suur ku la wax ne suba dana la fekk ku la ko wax ban garanti nga am ci suba dana la fekk amul kenn ci nun ñii yal na yàlla guddal fan yëpp waaye amul kenn ku mën a garantie sa bopp ne suba jant bi fenk dana ma fekk te kenn ku ne nag yaa ngi ne teen nag ne man bokkuma ci list bi list bi war a dem man bokkuma ci <laughs> te gars yi nag malaaka yi malaaka yi de moom toujours waaja ki yàlla digal mi ngi ko jox listam boo xam ne mi ngi ko yor taxaw defal ko ay heure ki seconde bu lu jot mu daal di koy exécuter ci saasi amul taxaw te du loo ko yëg doo ko du la ko wax doo ko xam koo xam ne nag dalay bett lu mu la digal gaaw ci koo xam ne dalay bett lu mu gaaw ci de yàlla day bett de waaw kon nee na amartukum bil dara lépp lu ngeen di def rek da ngeen gaaw def ko bu leen xaar xaar damay xaar damay xaar déedéet naa xaar xaar baat boobu sax daa bari ci Sénégal xaaral tuuti xaaral tuuti ila euh, ila kulli ma usina lakum da gaaw ci lépp lu ñu leen digal leen yàlla digal lu yent bi digal lu leen digal moom Cheikhul Xadim lu leen seeni kilifa digal mu ne nag taallamu jàng leen ay waay bu ngeen bëggee xam bu ëllëgee jàng leen sëñ Tuubaa wax ak yéen de yéen xale yeeg mag ñi mu ne taallamu jàng leen kooku de bëgg na bëgg nañu suñu njëriñ taallamu jàng ki la koy digal bëgg na la ndax nit fokk mu bëgg àdduna walla mu bëgg alaaxira yaar yi foog nit bëgg ko wala mu bëgg ñaar yëpp waaw fa man araada al dunya fa alayhi bil ilm wa man araada al axira fa alayhi bil ilm wa man araadahuma maan fa alayhi bil ilm ne boo bëggee sa àdduna jàkk jàngal war ngeen xam dara de noo ngi nii nun ñi jàngul ci wàllu àdduna sax dañ nuy yilif rek nuy jàmbar rek di soow rek di kaas rek gaa yi gaa yi war ci kaw rek di di di def lu leen neex ñoom ñi jàng ah nu ñuy def waaw ki jàngut moom wax dëgg yàlla ki jàng ko yilif munu ci dara foog mu yilif ndax moom jaayil mënut a jiitu kenn ku xamul doo jiitu moo tax sëñ Tuubaa noonu taallamu jàng leen xam ngeen réew maa ngi nii léegi pour won leen am solo gu jàng am solo eh, ay nit a ngi la yilif yoo xam ne doo mën a wax ne dañ ma gën juddu dañ maa gën deret dañ maa dañ maa dañ ma yooyu yëpp amu ci luñ la yilifee jàng naa ba am diplôme sàngam te amoo ko loolu dong lañ lay lifi du leneen ci wàllu àdduna rek xam ngeen ne kenn du nekk njiitu réew te jàngoo moom moom am ku la mën a jur ak foo mën a jóge ak askan woo mën a bokk doo xëy xëy benn bis ñu ne ah diw mii kat ci askan sàngam la bokk léegi ne kay jiite réew mi mukk du am lu mu jàng rek la ñuy laaj yan diplôme la kon loolu ci wàllu àdduna képp jar na jam jàngi ndax maanaam nekk koo xam ne dañ lay yirif ba faw te ñi lay yirif mën nga leen a yirif dañoo jàng rek jàngal li ñoom xam-xam moom amul kékka ku jàng xam kon sëñ Tuubaa nee na taallamu jàng adduna ak jàng alaaxira jàng xam-xamu diini bi jàng xam-xamu adduna bi yaar yépp baax baax sëñ Tuubaa bi mu wax def ne wa kullu ilmin bi manaafi yëfi nee na jàng leen lépp lu am njëriñ jàng leen ko lu am njëriñ rek na ngeen ko jàng jàng leen médecine xam nga ne médecine day xam-xam bu am njëriñ la xanaa ku sa biir metti day da dem mais sa xel dina nekk ci médecin bi ak hôpital kon lañ fa jàng ba man ko am na solo yeneen xam-xam yi si yëpp it noonu la demee kon nit mën na ko jàng ñaareel bi xam-xamu diine ji nag nga xam ne mooy li nga xam ne moom la ñëpp war a jiital xam-xamu diine nga xam ne ñëpp moom la war a jiital te am ñu ko sàggane waaw ka dem jàng jàng jàng ba am ay diplôme ba nekk docteur ñaan doctorat waaye xamul ci diineem dara bu ñuy bu ñuy lim jaahil yi dañ ko ciy boole bu ñuy lim jaahil yi ci diine dañ ko ciy boole gaa yi toogee dañu ñu ne ana jaahil yi dañuy rang fii borom doctorat ba jàngu dara ci diine dañ ko ciy boole ne ko demal taxaw fee ci ñee nga bokk nga xamul ci diine dara kon réer gi gën a bon ci àdduna mooy réere sa diine réer gi gën a yées ci kaw suuf mooy réere sa diine yonent bi sallallahu alayhi wa wax na am na fu mu wax ne nit yowmal xiyaam réeru ak njabootam dana ko fa la maanaam say doom ak say soxna nga bañ leen a jàngal xamuñ dara ne nit dana bax lol di jaamu yalla di julli di wor bax lol dara musuko euh musuko tardel ci walu yalla waye mu dem ba alaxira ba nga xamne bu don tiké dag na tiké ba war dem ajana ah ñu ne ko taxawal ak njabotum dik taxaw ci gënaaw en do cas mana mën do demee déme non nak la nga don def ba ji jii ñu jox la si tiké nga wara dem ajana boo nu ko digaloon def ko ci nun nooy ànd ak yow kon doo dem bàyyi nu fi de te nag loolu mën naa bàyyi xel de te dana am de gis nga sax ñu bari bu ñuy julli duñu woo seen doom duñu woo seen soxna buñ julliwut seen yoon buñ jàngut seen yoon yooyu moom duñ ci xuloog ñoom mukk waaw am na borom kër yoo xam ne julliwoo duñ ci xoloog seen soxna mukk wóoroo duñ ci xoloog seen soxna mukk lii waroon nga koo def ci diine defoo ko duñ ci xoloog moom waaye bu seetma bi tilimee mbaa mbub mi tilim mbaa añ bi naaje ñépp dégg leen kooku sa bopp rek la sa bopp la ñor waaye yàlla ñorul la kon bokk yi loolu itam lu mat a bàyyi xel la moo tax sëñ Tuubaa dinu xiir ci taallamu jàng leen waaw wa taaddabu ba mu ne taallamu da caa teg ne wa taaddabu te ngeen am yar ak tegin Wow. وأمرتكم بالمبادرة إلا إلى كل ما أذن لكم تعلموا وتأدبوا واو na ngeen تعلموا watantafiu fi lxaali walmaal waaw na ngeen jàng te jariñoo ko tey ak ëllëg sëñ bi saa bu waxee rek dina ne àdduna ak alaxira fu mu tuddee téere mi tam faw zey ni daaray ni nooru daara yi yooyu sëñ bi fu ngeen gisee moom xam na li muy def de ñun ñii nooy noo xamul waaye moom bu waxee fi lxaal walmaal دارين فوزين موي دفرو في دفرو في غناو ييب نيار ييب منا غناو من nga دفرو في تي تي بو ديمي في دفرو سي الاخره واي فخير دفرو سي نيار ييب تي لول لا دو بغل موم داخ موم لا نوي واخ بوغن بوغن دي خول سي بيدم مي بيند نيار دو جيس موك موي واخ سي لن دي واخ سي ادونا كسي ولا مو واخ سي الاخره كسي فولن فك لو سي غنا بري دالين دي بولي ndax day xam ne ñaari yi mënuñoo ñàkk adduna mooy yoonu alaxira li ngay la ngay am lépp ëllëg yowmal xiyaam fii nga koy liggéey ci adduna si doo dem ba alaxira di ko liggéey fii fii ngay toog di ko liggéey fii ngay jullee fii ngay woore fii ngay jaamoo yàlla fii ngay defee lu baax alaxira moom dañ fay fayee rek kaay nu fay la mais amul julli amul woor amul joxe asaka amul dara taklif amatu nit ki bu xasee ba génn ci bàmmeelam xayru mukallafin yàlla tegatu ko dara nit moom bis bu ruu yi di génn ku de génn sa bàmmeel amatoo taklif ku xas ba dugg ci sa bàmmeel it amatoo taklif nekkatoo mukallaf ndax kenn santatu la dara lañ la santoon ba nga nekkee ci àdduna lañ la ko santoon bu fekkee doon nga ko def boo duggee ci bàmmeel bi fekk ko boo demee àllaaxira fekk ko boo ko fa defut doo ko fekk wa wajadu maa amilu xaadiran wala yazlimu rabbaka ahadan li ngeen fi defoon rek ngeen fi fekk benn waaye dikk na ci Cheikh Mouhamad sëñ Fallou sëñ Fallou ku mënoon na firi alxuraan ndax daf daf koy firi firi mu neex ci gàtt te lu moo moo moo am lu baax la ndax amul xel da nga koy firi lu gàtt mu dégg ko benn yoon jàll ci leneen daf ne ko wa wajadu maa amilu xaadiran lu muy firi mu ne ko kenn ku ne la nga doon jëf dañ la koy defal ab lal rek dugal la ko ci sa bàmmeel ci lañ lay tëral yaa xam nooy na am nay dégg wala leen yaa xam dugal defal ci sa biir bàmmeel fab la teg ci ci kaw nooy na nooyut kooku yow yaa xam ne yaa ko sab lala loolu mooy wawajudu maa amilu xaadiran yàlla na ci yàlla musal te defal nu ko lal bu nooy bàmmeel day na waar lool képp kuy xalaat rek war ngay xalaat bàmmeel ndax bari na lu ñuy def dañ koo xalaatu tooñante geeg yàqante geeg làmmiñ yu ñaaw yi léegi rajo yi ku ne yaa ngi dal ci sa kaw morom moo xam ne sa moromu jullit la wala du sa moromu jullit doomu aadama la rek ngay wax ci moom loo xamut foo toll di wax ci moom loo xamut yal na ci yàlla susaal te loolu bari na loolu kii xalaat ne lii muy def dina ko fekk ci bàmmeelam mu wóor ko waru koo xalaat waru ko def kon daanaka jeex na kon nanu bàyyi xel suñ diggante ak sunu bàmmeel damay wax ne nit ñi gëm nañ dee la ca gannaaw dee lañ gëmul nit ñëpp gëm dee ndax gis nañ seen kenn ku ne toog nga bis sa baay dee wala sa yaay wala sa dëkkandoo nga teg sa bët xam ne diw mii da dund noo daan ànd tey mi ngi nii faatu ñépp a gëm dee ku gëmu dee mu amut la ca gannaaw dee la nit ñi gëmut ndax li yàlla wax ne dana ko def loolu dana am wala du am fi ne loolu la nit ñi gëmut waaye de moom ñoom ñëpp gëm nañ ko waaw yàlla ko am ful la fi mu doon fenkalee jant bi ba fi mu ne def fi la koy fenkalee ba aadama ñëwee ci kaw suuf changé wu فيم كوي سولي فيت سانجو نيم ني وون كل نفس ذائقه الموت بابي سو تاي جي ماغا تي كون لي نو جيس ورنا دو وون نجي سودي نيمي ديف ني اكا اكا واي ام فول تي لي ديف كو خامنا نك اه سا دون دافا نيه رك ناني دي سما دال كو دي دي ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا يفري لولا نيي dund gi de dara mu ah ku faatu rek am na ñoo xam ne dañuy waru foofu lay daanale mooy ànd ak waaju baax ju mel ni Sëriñ Tuubaa nga toog jaaxaat li muy digle doo ci def dara li muy tere doo ci def dara doo ko roy ci dara te naan nag bu ëllëgee rek sëriñ loolu xam ngeen nax sa bopp de loolu sëñ bi bu fekkoon ne am na koo xam ne mën naa bañ a jëf mu mu mu mu sowe ko waaye sëñ bi ay doomam a gën a jege sëñ Tuubaa xanaa nit ku ne sa doom yi nga xam ne say doom bopp lañ xanaa ñoo la gën a jege nag xanaa bala ngaa laax lekk xanaa ñoom la nga ñoom ngay njëkk a waaye ñooñu xool leen ñun ñi ci xam yéen am na ñoo am sens fekk fekk leen xam leen waaye ñun de ñi ci xam ñëpp. musuñoo noppalu musuñoo def leneen boo leen gisee ñu tëju nga defee ne dañuy nelaw ñu ngi ci yàlla ñu ngay jàng alxuraan ñu ngay naafila ñu nga ci seen diggante seen borom waxuma la julli juróom yéeg li leen war de waaye yeneen yi ñuy def dañu xaj sax ci bëccëg bi wala mu xaj ci guddi gi kon ndegam ñoom ñooñee nga xam ne ñoom la Cheikhul Xadim jur ñooy góor góorgóorloo noonu ci seen diine asi nun te ñépp la ko digal kon nag nañu bàyyi xel bu baax a baax ne yëf fii am na fu muy yem foofee mu yem nag muy dee dee yàggut ab diggante bu gàtt la fi nit ki dee ak fi muy dekkee fu jege la waaw kon nag mbokk yi foofu la ñuy waxtaan wi tey bu ngeen gisee nag bunt yi duma koy gaaw gaaw gaaw gannaaw jànguñu ko dañ koo bëgg a dégg rek nañ fexé ba dégg ko déggé ci ëpp solo ha, ah, wax ko rek mu jall loolu moonu nu dal moo nu teg li nu dal ci xaside yi li nu dal ci yi moy benn duñ ko firi wala ko koy firi day mbar rek mu jall ba nit ñi sax duñ xam li muy wax te xaside yi lu xala rabbi rab du dañ ko wara leer leeral dañ ko wara leer ba nit ñi xam ko buñ ko leeralu duñ ko xam kiko jang da ko wax da ko nàmp ko da koo jàng rek kon loolu lañ leen bëggoon a andil tey ñu ngi leen di nuyu di leen siyaarewaat di leen ndokkelaat di ñaan yàlla subhaanahu wa taala nu eggale koor gi ak jàmm fekke lépp yàlla nangul nu koor gi nangul nu naafile yi nangul nu sarax yi nangul nu mboolem loo xam ne mu ngi ko ciy def e, ci darajey qur al quran ak darajey weeru koor bi ak darajey cheikhul xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waa ah, kay jërëjëf euh, sëñ ci waxtaan wu am solo muy indiloon tey ñaan suñu borom dafa ñu dégg ak topp ñu ngi sant bu baax tamit di profité di sant kilifa yi nga xam ne ñoo teewee jotaay bi bu ñu ciy tuddee sëñ Abdou Khadir Bousso rek ak ñu mu àndal dara doy di santaale bu baax te suñu mbokk soxna yi nga xam ne ba koor dalee ba tey ñu ngi ko ànd ak ñun xanaa dañu leen di fàttali programme suba bi rek muy thème bu am solo mu jëm ci wàllu wér-gu-yaram. muy la maladie hémorroïdaire manifestation clinique et prise en charge maanaam jàngoroy kajoor màndarga yi ak faj mi ñu ci ànd ak docteur Serigne Mbacké Ndiaye xam naa kon dañuy profité rek di sant bu baax ñi ngi xam ne ñoo ko doon jàllale ak fépp fu ñu ko mën di jàllalee ba gérir bokk taal bi mën cee jot xam naa dañ jox sëñ bi ñaan ñu taxal ba suba jàmm incha allah jërë ngeen jëf